di bëggee Tapha Pro maa ngi lay bëggee di la encore une fois sama doomu nday sama toma mu ngi noonu ASEC Ndargou Ndaw ak ñi nga xamante ni ñooy ASEC Salam numéro 17 bi euh, nangu na bal bi muy def euh, jox na ko di numéro 9 ASEC Salam ñu ñaara ñu ngi xëccoo bal bi ba léegi numéro ñàkk na ko numéro 18 bi changé na jeu jox na ko numéro 11 bi lu muy defaat da koy ñàkk wala de attention ASEC de Ndargou Ndaw retiré attention occasion manquée pour l'instant deuxième occasion manquée pour ASEC de Ndargou Ndaw su ma juumul dama ne bu mooy bu ASEC de Ndargou Ndaw bi da ko dugal ñaar yi mun naawal Kasikawa corner pour waaye match bi mun naa pour l'instant du ma ne 50 sur 40 dama naan 50 50 waaye ñoom ñaar ñëpp attention dal na attention Papis Diop ndawal na bal bi li xaasa seen di wax naan aji na mango dafa aji mango ku bëgg ñu may ko xoox voilà mu ngi noonu ASEC Ndargou-Ndaw ak ASEC salaam ñu ngi doxal ba léegi ASEC moo mëneegum 1 Ndargu Ndaw laa wax nag waxuma ASEC salaam ASEC Ndargu Ndaw moo mëneegum 1 di bége waat encore une fois suñu arbitre bi lu mu wax fële la jëm si waa ASEC da Ndargu Ndaw voilà nee génneel mbuus yi lii bokk si règlement bi mu génne waat ko voilà waa ASEC salaam ñoom ñoo ma noonu coup franc Go Franc pour ASEC dans Ndargu Ndaw numéro 7 bu ASEC moo def coup si numéro 14 bu Ndargu bi numéro 17 bi teg na bal bi muy defa da koy passé wala da koy dóor voilà dóor na si alaba numéro 3 bi tëb na ñàkk na ko waaye waa ASEC Salama ñoom ñoo léegi ñu ngi doxal ñu ngi bañ numéro 18 centre na bal bi attention Euh, le deuxième bi non non le but dugul dugul dugul dugul bi dugul fi amul VAR waaye amul VAR fi amul VAR attention waa Asec Salam numéro 4 bi Salam attention góol bi génnoon na na bal bi góol bi génnoon na na bal bi waa Asec waa Asec def Salam Asec na Ndargu Ndaw ñoom ñaar ñu ngi doxal ndam benn bi moo amagum si match bi day am deuxième bi am deuxième loolu yàlla xam waa sec Ndargu Ndaw waa sec Salam ñu ngi doxal nangu na ko corner di leen wax fii amul VAR boo leen bëggee VAR ngeen bàyyi ba ñu taa ngeen ñëw si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu communication yi ñu wax leen bal bii wala dugg waa sec Ndargu Ndaw dégagé nañ ba attention non ñàkk na ko waa sec Salam. numéro 2 bu ASEC Salam moo yor bal noonu jeu ko si kanam lu muy def Orzo Orzo attention que pamti pamte ma du ma ne xaw ma lan moo xew voilà mi ngi noonu waa ASEC da gu Ndaw wax waa ASEC Salam ñu ngi doxal ba léegi ASEC da Salam jeu si kanam ñàkk na ko numéro 4 bu ASEC da Ndargu Ndaw tulli na bal bi bal bi àggul numéro 4 bu ASEC Salam moo yor bal jeu si kanam lu muy def tey centré wala waaw waaw wa Zora Asek Salam ñàkk na ka numéro 15 Abou Asek de ah, Ndargu Ndaw moo tàkkale bal bi noonu jokk numéro 11 bi numéro 11 bi jokk numéro 5 bi numéro 5 lu muy def ah, attention tous tous tous ah, pour Asek dan Salam ba léegi jéego gum nañu 38e minute 1 bi à 0 pour ASEC Ndargou Ndaw arbitre bi nee na tous euh, numéro 14 joxal bal bi mooma tooka ASEC Salam ASEC Ndargou Ndaw ñu ngi doxal la léegi waa ASEC Salam jox na ko numéro 8 bi numéro 8 bi mu ngi defar jël na si kanam numéro 17 bi da ngay ñàkk wala numéro 4 bi tamu na ko jox na ko góol bi góol bi dégage si àll ba nee na leen jëlee na waa numéro 3 bi Ameth la tudd jox na ko numéro 18 bi numéro 18. numéro 5 bi nu ngi ko dugal sur la première minute daka dóor bal bi dugg waaye waa ASEC Salam ñu ngi dem numéro 14 bi jox na ko numéro 7 bi arbitre noonu hors-jeu hors-jeu pour ASEC Salam arbitre bi nee na la kaay numéro 8 bi Papis Diop kan la koy jox numéro 14 bi numéro 14 bi changé na bi bi ngay football romb ko parce que mun naa ne da nga ko xeeb su ma juumul waaye ba léegi waa ASEC ndargu ndaw wax waa ASEC salaama ñu ngi doxala toujours 1 bi à 0 bi marqué la première minute numéro bi attention coup franc coup franc pour Assec Salam Ahmed Nar moo def coup franc si li nga xamante ni mooy numéro 15 pour li nga xamante ni mooy sa zone kenn ku si nekk jël coupe si li nga xamante ni mooy sa zone kii dafa jël coupe si zone am kii jël coupe si zone am yàlla di def ñoom ñaar ñëpp ñiy gagné di gagné di gagné ba yàlla tey ñuy joué ASEC dugalu gum ko un bi à bi bu bi boo xamante ni man sama jëm boppam foogee ma ko waaye li ma si rek mooy que rési yi. Oh, le but est long sur le pour l'instant mun naa ne su ma neexee moo wax ni ASEC Ndargou Ndaw moo nominé gum parce que ay balu pa ay balu poto laa fi gis ak ay bal yoo xamante ni tey jii nii bal de bii la waaye du ma ne xoola du ma wax ni waa ji moom moo ko dóor ci poto bi loolu yàlla xam ba léegi coup franc numéro 4 bi moo koy dóor bu ñi xamante ni mooy waa asek salaama aseka salaama ndaw dóor na ko góol bi jàpp na ko ba léegi attention li ngay def wóorul góol bi lu muy def dara wóoru si waaye waa asek da ndargu ndaw waa asek salaama ñu ngi doxal la attention waa asek ndargu ndaw ñoom ñoo bal noonu ñoom ñoo fi ba seen camp pour franc non arbitre neen dara amu fi tous arbitre nee na tous voilà Zelen ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salam ba léegi un but à zéro pour ASEC ñoom ñooy doxal noonu ASEC Salam ASEC Ndargu Ndaw tous pour ASEC de secteur salaam ñoom ñoo baal noonu si kaw Ndar gu ndaw numéro 11 bu ASEC Ndar gu noonu di doxal wax na nga numéro 8 bi perte na ko numéro 8 bi ah, di na nga numéro 15 bi numéro 15 bi fekk ASEC ñu ngi bi ñangu na ko def na centre jox na ko numéro 8 18 bi numéro 18 ñàkk na ko numéro 4 bi moo ko récupéré jox ko numéro 15 bi numéro 15 bi changé bi waaye ba léegi numéro 15 Abou Assec de Ndargu Ndaw moo yor bal noonu waaye ñu ngay doxal ba léegi ñoom ñaara kenn mënagul sa morom bi nee na dara amu si bi nee na dara amu ba léegi waa Assec de Ndargu Ndaw ñoom ñoo yor bal noonu di doxal waaye numéro 5 bi moo bal noonu jël tout ça pour Assec de Göz bu az Elaaza ñu ngi di la silaar Elaaza nee na asek rek asek ban asek dan dar bu ndaw asek salaam asek dan dar asek salaama voilà mu ngi noonu asek ndar asek salaama coow am na boo xoolee mais malheureusement man xaw ma la coow li am mënu ma wax lii la parce que damay bañ wax loo xamante ni du amul asak salaam asak ndar gu ndaw ba léegi bi a dara pour asak te ndar bi marka allah première minute numéro bi moo ko dugal bi bu gaawa ñu ngi si euh, dernière minute bi euh, de cet euh, toujours au but entre ASEC de Ndargu Ndaw ASEC waa tous waa ASEC Ndargu Ndaw ñoom tous noonu carton pour le numéro 17 de ASEC de Salam et ASEC Ndargu ñoom ñaar ñëpp ku si nekk am nga carton voilà waa ASEC ñoom ñooy doxal noonu waa ASEC Dar Salaam nanguwaat nañ ko numéro 8 bi tulli na ko sa ba génn na wala génnu la numéro 17 bi mbëkk na ko mu dem numéro 6 bi nangu ko jox na ko numéro 14 bi numéro 14 bi muy def génn si Ndaw jox na ko numéro 18 numéro 18 lu muy def ñàkk na ko ñàkk na ko dégagé nañ ko numéro 17 bi jël ko coup franc Coup franc comment coup franc pour Assec euh, Salam coup franc pour Assec Salam coup franc pour Assec Salam toujours bi à waaye ba léegi ñu ngi ci match bi match bi noonu Assec Salam Assec Ndar bu ndaw ñu ngi doxal Assec Salam Assec Ndar bu jox nañ ko numéro 8 bi numéro 8 bu Assec Ndar bu ndaw 12 12 pour Assec bu ndaw numéro 15 bi moo koy tuus lu muy def jéene ko si kanam jox na ko adversaire am adversaire am tulli ko waaye tulli bi demul fenn ba léegi waaye passe ak salaam ñoom ñoo àndoon bal ñooy door xool noonu numéro 9 bi na bal waaye jakaase naa baaxul malheureusement waaye ñoom ba léegi ñoom ñoo ñoom ñoo yoraat bal noonu ñu ngi xeex ñu bu ASEC moom yoraat bal noonu tulli na ko tulli bi génn na jakaase na bal mi-temps entre ASEC Ndargou Ndaw ak ASEC Salam ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salama ba léegi zoro ASEC Ndargu Ndaw moom daanu si suuf noonu. góolu ASEC deuxième góolu ASEC Salam bi am na lu muy jël di ko jox ñi nga deuxième góolu ASEC Salam moom ngeen gis noonu muy am lu muy jox euh, premier góolu ASEC Salam bi ay ndox la waaw da koy jox ay mbuusu ndox ASEC Salam ASEC Ndargu Ndaw toujours 1 euh, but à pour ASEC Ndargu Ndaw bi marqué à la première minute numéro 5 bu ASEC Ndargu moom moo dugal noonu voilà moom ngeen gis noonu ba léegi ambiance moom lañ leen wan noonu coup franc arbitre sifflé na coup franc bi dem na waa tëb na mbëkk ko delloo na ko numéro 17 bu ASEC Salam bi ñàkk na ko waaye ba léegi numéro 5 bi jëlaat na ko da ngay wala arbitre lu mu wax tous tous pour ASEC Ndargou Ndaw tous ah, pour ASEC Ndargou Ndaw toujours au but à tulli na ko bal bi génn tous waaye waa ASEC Ndargou Ndaw ñoom ñooy def changement wala joueur bi daa génnoon di doog a duggaat joueur bi daa génnoon waaye arbitre bi faalew ko waaye arbitre bi faalew ko waaw ma arbitre bi a gisul la xaw ma gis na ko waaye arbitre faale ko li ma leen wax rek mooy que ku xam deuxième mi-temps bi ñaata bii lay am neexal bu dund dañuy pari foot tey waaye ba léegi waa ASEC tey pari foot la ASEC moom mooy gagné première euh, deuxième mi-temps bi wala ASEC euh, Ndargou Ndaw moom mooy gagné première mi-temps bi wala ASEC euh, Salam loolu nañ si dem. ku ko xam nag ma ko wax ba léegi waa Assec Salam waan Assec Ndargu Ndaw ñu ngi doxal numéro 11 bu Assec Ndargu Ndaw moom moo bal bi noonu di dem jox na ko ñàkk na ko ñàkk na ko waaye Assec Salam ñu ngi doxantantu seen biir numéro 4 bi delloo na ko dégagé na ko numéro 17 amu fa tout franc waa saw nee na waaw Sow nee na ASEC moom mooy dóor 2-0 si deuxième mi mais ñaari ASEC ay football ASEC Salam wala ASEC Ndar Ndaw loolu danga ma koy wax bu fekkee ASEC Ndar gu Ndaw moom mooy gagné premier mi-temps danga ma ne ASEC Ndar Ndaw moom mooy dóor 2-0 premier mi-temps wala ASEC Salam mooy dóor 2-0 premier mi mu ngi voilà Pape Ousmane yow joxe nga sa pronostic ba pare ñu xool ba léegi Pape Ousmane nee na ASEC Salam moom mooy gagné premier mi-temps deuxième mi-temps Safrula comme te ASEC Ndargou moom moo dóor euh, premier mi-temps ASEC Salam euh, kon nee na ASEC Salam mooy gagné premier mi Elage nee na Asec moom mooy dóor Asec Salam 2-1 2-1 voilà ñu dem si ñu xool ba xam nu muy mujjee Asec Salam Asec Ndargu Ndaw ñu ngay doxal numéro 4 bu Asec Salam jox na ko numéro 5 numéro 5 lu muy dafa añeeku na non ñàkk na ko dégagé na bal bi waaye ba léegi bal bi lu muy def génn tuus tuus pour Asec Moussa pour ASEC Salama ba léegi waa ASEC Salama ñoo bal noonu di doxal numéro 10 bi lu muy def numéro 17 bi attention numéro jox na ko numéro numéro 4 bi ko numéro 11 bu ASEC moo ko nangu jox ko numéro 8 bi 8 bi delloo ko waaye ba léegi waa ASEC Salam ñu ngay doxal delloo nañ ko seen góol bi waaye seen góol bi joxaat na ko numéro 2 bi numéro 2 bi delloo ko si défense bi waxoo ba léegi ñaata lay gagné deuxième mi-temps 2-1 nga wax xaw ma voilà noonu ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salam ñi ngi doxal ba léegi waa ASEC numéro 15 bi nangu na bal bi waaye ñàkkan na ko jox na ko numéro 17 bi bi ni muy dafa day centre dugg na si surface yi ba léegi attention occasion manquée pour attention attention pour ASEC Salam toujours un but à zéro pour ASEC de ñoom ñaar ñëpp ku nekk am nga boo xamante ni bii waaye malheureusement kii rek a mu or kii dóor ko góol bi jàpp ko ñu xool ba léegi waa ASEC Salam ñoom ñooy doxal lu muy wax ba léegi waa ASEC ñoom ñooy bal noonu di doxal ci kanam Zeyna devant ASEC Salam tëb na baal bi. voilà joxante nañ ko seen biir waa ASC Excellence ba léegi ñu yor bal numéro 5 bi jox na ko numéro 17 bi da koy ñàkk numéro 17 bi ba léegi moo yor bal bi noonu lu muy def nga doxal waaye numéro 4 bi nangu waa na bal bi si moom centré na ko doonoo téere bal bi ba léegi nga doxal jox na ko numéro 9 bi attention attention oh là là quel oh ñu ngi joxante seen dugg camp waaye tulli na ko bal bi dem sa alaba numéro 15 bi asek tulli waat na ko bal bi sa kaw a ba léegi tullente doon nee na ko boo tullee ma ay tullente lay doon doo bàyyi du ma bàyyi voilà mu ngi noonu asek Ndargu Ndaw asek Salam numéro 15 bi asek Ndargu Ndaw moom mooy uh, tulli bal noonu waaye ñu ba léegi Assec Ndargu Ndaw Assec numéro 2 bi waaw Diogono mu ngi koy tulli waaye bal bi ñëwaat na si ñoom numéro 15 bi tulli waat na ko bal bi dem sa àll ba waaye ba léegi ñoom ñoo yor bal noonu ñu ngay doxala numéro 8 bi nangu waat na bal jox na ko numéro 18 bi numéro 18 di si kanam jox ko numéro 7 bi numéro 7 bi lu muy def ñàkk na ko ñàkk na ko waaye xeex la def ba def fët foofu noonu fët intelligent la def boo seetloo voilà ba léegi Pape Sow nee na ASEC Ndargu Ndaw moom mooy gagné par super deuxième mi-temps bi waaye Pape Sow ba léegi man li ma jaaxal mooy ASEC Ndargu Ndaw ñaata lay gagné si deuxième mi bi dama ne kan mooy am bii si deuxième mi bi ak kan mooy gagné si deuxième mi-temps bi premier mi bi bokkul parce que ASEC moo gagné un but à zéro premier mi bi ASEC moo ko gagné deuxième mi laa def li nga xamante ni moom gagnant bi waaye waa ASEC asek salaam ñu ngi doxal jox na ko numéro 8 bi numéro bi dellu na jox na ko numéro 15 numéro 15 de si kanam ba léegi numéro 7 bi ñàkk na ko ñàkk na ko ñàkk na ko waaye waa asek ndar ndaw lu def at bi bi fóot coup franc coup franc pour asek salaam vraiment pour ASC Salam góol bi dafa yàkkamti pour jouer ko ASC bi moo yor bal noonu di jouer ci kanam lu muy def day ñàkk tous tous pour ASC da Salam voilà ñu noonu ba léegi tous encore une douze ba léegi ale mu ngi noonu waa ASEC salaam ñoom yor bal noonu di doxal ñaaka nañ ko numéro 11 moo ko récupéré jox ko numéro 8 bi numéro 8 numéro 3 bi delloo ko waaye ba ñaakaar nañ ko ba léegi numéro 4 ASEC salaam moo bal noonu di doxal jox ko numéro 8 bi numéro 8 bi jël si kanam numéro 7 bi da ngay ñàkk wala da waaye ñàkk na ko ba léegi tous tous pour Assec Salam tous nañ ko rapidement numéro 8 bi tous encore pour ah, pour l'instant pour Assec Ndargu Ndawa voilà jéegum nañ 56e minute Massar Massar Massar seen nee deuxième mi-temps bi 1-1 waaye tamit Issa Issa Issa nee na deuxième mi mooy gagné Ndargu Ndaw 2 bi 0 voilà ñu xool ba léegi Issa nee na ASEC mo mooy gagné ASEC Ndargu Ndaw 2 bi ci deuxième mi-temps bi laa wax ñu xool euh, kan moo koy gagné benn carte crédit laa yor euh, bëgg leen ko baaxee comme ni ma defoon démb waaye démb malheureusement kenn gagné ko voilà mu ngi noonu. ba léegi waa ASEC Salam Zélim Bam si kanam numéro 15 bu ASEC Ndargu Ndaw Zélim delloo na waaye ba léegi delloo numéro 7. Assec a Ndaw delloowaat na bal bi waaye Assec Salam ba léegi ñëwaat bal jox na ko numéro 11 bi numéro 11 bi delloo ko numéro 5 bi numéro 5 bi joxaat ko na bal bi sa alaba déedéet jox na ko Pam Naar arbitre bi jox ko numéro 4 bi numéro 4 bi delloo ko ko waaye ba léegi coup franc coup franc coup franc pour Assec Ndargu Ndaw Euh, pour Franc Danger pour Assec Ndargou Ndaw Ibrahima nee na 1-0 Ndaw Ibrahima nee na 1-0 pour Ndaw kon Ibrahima nee na Assec Ndargou Ndaw moom mooy gaye ci deuxième mi-temps bi 1-0 noonu sama carte crédit laa yor ca baaxee kan mooy gagné si deuxième mi-temps bi ASEC Ndargu Ndaw la wala ASEC Salam ñoom ñaar kan moo siy gagné damay pari foot ak gaay sama carte crédit laa yor bëgg leen ko baaxee 1000 francs carte crédit l'essentiel que mooy que képp koo xamante ni kañ nga après dinaa la jàllaleel sama numéro nga woo ma ma jox la carte crédit bi bu la neexee ñu noonu. du ay kafa du ay fo du ay ree bëgg a téléspectateur Fal&Co kontaan rek moo tax may def loolu voilà. Ibrahima Mbalaga dañuy kaab dañuy foo dañuy ree waaye bëgg téléspectateur Fal Inco lépp ngir bëgg ñu kontaan rek voilà ASEC Ndargu Ndaw ak ASEC Salam coup franc danger pour ASEC de Ndargu Ndaw Alassane nee na victoire pour Salam Alassane nee na victoire pour Salam Alassane yaa wax loolu kon nañ xool Alassane nee na victoire pour Salam mais waxoo ma ñaata ñaata lay doon. Asak ndax coup franc attention coup franc attention Papis Diop moo dóor bal bi bal bi romb ci poto bi. mais malheureusement bal bi duggul waaye ba léegi Alsaan nee na coup franc attention Alsaan nee na voilà ku wax loolu Souleymane nee na match deuxième mi-temps bi 0-0 la Ousseynou Diop nee na deuxième mi-temps bi 0-0 la Massara nee na deuxième victoire pour Salam voilà mu ngi noonu ba léegi attention attention voilà mu ngi noonu Papis nee na 2-0 pour Asec Salam 2-1 pour Asec Salam 2 pour Asec Salam 1 Ndaw ki nga xamante ni mooy Alsaan nee 2 pour ki nga xamante ni mooy ASEC Salam moom tamit loolu la wax Ibrahima nee na 2 pour salaam yaa wax loolu Ibrahima kon nañ ci dem carte crédit bi dina dem wala du dem parce que démb ba léegi maa bëgg gaa ma jox leen ko waaye ASEC Salam ASEC Ndar ndaw ñoom ñaara kenn ku si nekk indi nga li nga mën franchement mais kii daa qualifié euh, demi-finale si li nga xamante ni mooy phase euh, euh, zona kii tamit qualifié demi-finale si li nga xamante ne mooy phase zona attention waa salaam numéro 10 bi jox na ko numéro 8 bi ba léegi numéro 10 bi nanguwaat na ko lu muy def ah ñàkk ko waaye ba léegi numéro 18 bi moom moo yor bal doon jox na ko numéro 11 bi numéro 11 bi nu muy def ah changé na jeu bi jox ko numéro 13 bi numéro 13 bi day centre wala nangu na centre bi numéro 11 bu ASEC moom moo nangu bal bi ba léegi attention dara am voilà numéro 5 bu Asec ndaw Asec Salam moom moo yor bal noonu numéro 17 bu Asec Salam jox na ko voilà ba léegi waa Asec Salam ñoom ñooy doxal noonu dóor day dóor attention jaaraamu fa arbitre day doon a jugal ba léegi waa Salam ñoom ñooy doxal noonu numéro 4 bi jël na bal bi jox ko numéro 5 bi numéro 5 bi jël na bal bi jox ko numéro 10 numéro 17 bi ñu koy joxante si camp jàmbur voilà mu ngi noonu bal bi génn na fa Alassane nee na moom tamit nee na match bi la Alassane nee na match bi pour Salam voilà Alassane mu ngi noonu yaa wax loolu arbitre bi lu mu wax nee bal bi moo dugg si bi ba léegi gars démb ba léegi dama yor sama carte crédit nangu kenn nangu kaa gañe waaye li ma yor ah, si Pronix ba léegi mu ngi nii kii nee na deuxième mi-temps bi 2 euh, kii nee na deuxième mi-temps nangam nangam nangam kon gaa nañ xool ba léegi ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salam attention bi génn na lu muy def waaxuloo attention ñemee ma gaa yegali voilà muy noonu Assec Ndargu Ndaw Assec Salama ba léegi Ibou moo yor bal bi noonu numéro 13 bi jox na ko numéro 2 bi ñàkk na ko ñàkk na ko Ibou arrière na mbëkkaan na bal bi ba léegi waa Assec Ndargu Ndaw ñoom ñooy doxal noonu waa Assec Salam asafula waa Assec Salam ñooy jox numéro 11 bi changé na jeu bi ba léegi bal bi ñëw na sa digg bi attention ñàkk na ko ñàkk na ko ñàkk na ko comme li ma la waxoon sànq c'est le jeune joueur c'est xale la boo xamante ni donc da am talent entraîneur bi jël ko nekk kaay tey jii mooy sa jour bi ngay wane sa boppa soo wane wanewul sa boppa si équipe bi da dootoo wane sa boppa kon donk ah xamaguma mais lu mu wane nii man mun naa ne su ma doon classé équipe bi onze partants yi cla yi dugg donc man mun naa ne da si bokk sama kii waa ASEC ñoom ñoo war bal noonu di doxal ba léegi waa ASECA nangu nañ ko ba léegi waa ASECA ñoo ngi doxal numéro 8 bi Papis Diop jox na ko kan numéro 7 bi numéro 7 bi numéro 7 bi nu muy defa bëkkal na ko bëkkal na ko bëkkal na ko waaye ba léegi waa ASEC ñoo bal noonu di doxal centre na ko dégagement dégagement baaxul waaye ba léegi waa ASEC salaam ñoo bal noonu waa salaam lu ñuy defa numéro 10 bi moo bal noonu di doxala numéro 10 bi moo bal noonu di doxala numbe numbe Ibrahima dugal numbe nee na Ibrahima dugalal Ibrahima dugalal deuxième bii bi Ibrahima déggu la numbe numbe mu ngi si biir terrain bi di football xanaa ma yuuxu ko bu ma ko yuuxoo xëy na mu ngi noonu numbe Ibrahima dugalal deuxième bii bi Ibrahima boo buggee boo buggee ma maa ngi kontaane si say kër yi ma may nu me barke rasulaay maa kontaan si yéen voilà mu ngi noonu Maas Alassane nee na ok d'accord boog baax na voilà ba léegi ASEC Ndar ndaw ASEC Salama ñu ngi doxal waa ASEC ñëwaat ba bi noonu numéro 14 bi muy def centre nag attention bëkk baaxul numéro 11 bi moo yor ba noonu attention bi muy def góor na ko occasion encore pour ndaw corner corner pour ASEC da Ndar gu ndaw ba léegi li ma waxagum jeexagum 77e minute si deuxième mi-temps bi ndam demul ndam dikkul si premier mi bi ASEC moo am benn ball si premier mi bi nekk pëy à la première minute numéro 5 bi attention corner bi nu muy def da delloo wala delloo na ko delloo baaxul 6 mètres 6 mètres 6 mètres 6 mètres 6 mètres ah ah cëm Alassane nee na Ibrahima du dugal Alassane nee Ibrahima du dugal Numbe nee na ko dugalal deuxième bii Numbe nee na Ibrahima dugalal deuxième bii bi Alassane nee Ibrahima du dugal arbitre bi lu mu wax coup franc changement encore ci côté ASEC kan mooy dugg numéro 10 bi numéro 18 bi mooy toog. numéro 18 numéro 18 bi dugg aussi tamit di doomu Asek il s'appelle Ndiaga njaga di doomu Asek moom tamit doon na si zone yi nga xamante ni mooy ñooy ñi nga xamante ni ñoo téye ñoo nar a ëllëg Asek seen loxo nar a yóbbu Asek euh, fu sore sore sore macha allah balaa mu ngi noonu dugg na numéro 10 bi mu ngi tudd Ndiaga. voilà waa ASEC Salama jël nañ bal bi dóor ko Papis Diop ba jël na bal bi dégagé ko sa àll ba jox na ko numéro 2 bi numéro 2 bi lu muy def ñàkk na ko ñàkk na ko ñàkk na ko numéro 15 moo ko nangu jox na ko numéro 4 bi numéro 4 bi jox ko numéro 5 ba léegi ñu ngay joxante seen biir numéro 15 bi jëlaat na bal bi lu muy def fa da ngay ñàkkaat wala jox na ko Ibou Ibou lu muy def fa dégagé na simin jox na ko Njaga Njaga day see si kanam wala ah cëb football xale football xale football xale la ñu wax football xale Papa Alsana nee na jaajëf merci beaucoup Alassane merci beaucoup Pape Alassane maa ngi lay bëgg encore une fois di la jox mais maanaam léegi dama naan kuy supporteru ASEC Salam na wane boppam ak kuy supporter ASEC Ndar gu Ndaw dama nga wane seen boppam ñi nga xamante ni supporter ASEC Ndar gu Ndaw danga may defar rouge blanc ay kër nga defal ma rouge blanc supporter ASEC Salam danga may defar bleu jaune ma xàmmee supporter ASEC Ndargu Ndaw ak supporter ASEC salaam parce que tey jii match bi doon na match boo xamante ni donc man gis naa am na lu ma gis mais su ma ko waxee. su ma ko waxee su ma ko waxee su ma ko waxee damay bañ waa ASEC salaam fekk ma fi waa waa ASEC ndargu ndar fekk ma fii ma taxaw pamti pamte ma te loolu laay bañ tapet laa wax naa leen nga tapet laa bugguma xeex xaw ma xeex mënuma xeex xaw ma luy xeex donc gars mu ngi noonu Ibou tuus na bal bi jox na ko numéro 11 bi tuus encore ASEC salaam ñoom ñoo waneegum seen bopp cëm waa ASEC salaam ñu ngi waneegum seen bopp ana waa ASEC ndargu ndaw asek ndar gu ndaw asek salaama man fii mun naa ne ah, tey jii nii doon na journée boo xamante ni match bi nii oho asek ndar ndaw numéro 2 bi jox na ko kan ñàkk na ko Papis Diop moo yor bal noonu jabu na ko si flanc bi jox na ko numéro bi numéro 4 bi kan ko jox changé na ko ba léegi waa asek salaama jàng waa nañ bal bi si waa asek salaama ñoom ñoo doxal numéro 11 bi oh cëm waa ASEC Ndargu Ndaw ñoom ñu nga numee numee nee na moom ay ay ay cent ay deux ay cinq cent et quelques kër rouge mala lay maye maa kontaan si yow numee cëm waaw numee fu waa ASEC Salam wane seen bopp nga mën fa wane sa boppa li laa gëm supporter da wane sa bopp gëm gëm ni man kii mooy sama équipe bu may gañe sax man loolu laa bëgg voilà waa ASEC Salam waa ASEC Ndargu Ndaw waa ñu ngi doxal waa numéro 10 attention arbitre bi wax tous coup franc coup franc coup franc pour ASEC Salam ba léegi waa ASEC Salam numéro 12 bu ASEC Salam moo yor bal bi noonu di doxal jox na ko numéro 10 numéro 10 bi nu muy def am na luy xeeñ te ñemee ma wax fa ngeen wane seen bopp 100 pour cent kan jàkkaarloo tay neex 100% kan ma ne ka jàkkaarloo ah waaw 100% kan ma ne ka jàppaarloo xaw ma jàppaarloo xaw ma jàkkaarloo mu ngi noonu jàkkaarloo ñoom ñoo def seen 100% noonu 100% kan cëm sama dëkk Aline Aline Camara la GCAD ASC bu mag bi su lycée ñaar su ma doon man moom wax fa dëgg ne yàlla wax naa ko keroog fi nee naa su ma doon joxee meilleur trophée fair play ASC Ziadé laa koy jox parce que ñoo fi def loo xamante ni kenn def ko ñoom ñoo fi football la donc ñu gagné leen wala boog ñu machine yi toog calmement ñi génn tàccu seeni jour donc dox ndànk dem ñibbi kon donc ñooñu man su ma doon jox meilleur fair play man ñoom ñaa koy jox si entre supporter si entre équipe bi yëpp franchement gàcce ngaalama ASC Diadé bonne continuation di leen wax euh, déwén yàlla na daxar na li ngeen ut donc yàlla ngeen ko jot euh, si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ngi noonu waaw mu ngi noonu waa Seck Ndar bi raw Orzo non tous tous 100 pour cent salaam ku wax loolu Alassane Alassane nee na 100 pour cent salaam gis naa fi 100 pour cent jàkkaarloo gis naa fi 100 pour cent Diadé équipe bu dëkk bi lañ cay wax ñoom ñoo tàmm di wax équipe dëkk bi ñoo fi def lu kenn deful la su ma doon lima trois meilleures équipes euh, si Tëngéej damay lima ziade damay lima Dóor Fop ak Njuureen ñoo fi def loo xamante ni donc mun naa ne kenn defu ko mais ziade dafa def loo xamante ni Dóor defu ko ki nga xamante ne moo jur attention occasion manquée pour euh, ASEC Ndargou Ndaw deuxième bi wala attention góol bi jàpp na bal bi góol bi jàpp bal bi bilaay walaay Aline Camara nee na si fair play lañ leen xamee si lu ngeen tuddee seen bopp kon si lu noonu wane ko wane ñu yéene waa si yéena équipe bu dëkk bi wane ngeen ko yéena fi def lu kenn deful voilà muy noonu te franchement dama kontaan si yéen li dama kontaan si yéen parce que acte bi ngeen def acte bu noble la acte bu rafet la donc sa équipe football la donc nga ànd ak say joueur nga toog ànd ak say joueur tàcc leen yóbbu say joueur ndànk te xeex jugul dara jugul xeex jugul xuloo jugul dara jugul kon franchement man trophée fair play man yéen laa koy jox kii lu mu wax El 1-0 pour Kana 1-0 pour Kana El Hadj match lay doon loolu yaa ko wax man waxuma ko voilà mu ngi noonu Yacine mu ngi wane boppam El tamit mu ngi wane boppam waa jàkkaarloo a waa Aseka dama leen xamal rek na leen mbir mi fair play la nañuy kaf nañuy foo nañuy ree moom moo ñu tax a jóg kon donc su ma sañoon na day nekk benn. voilà su ma sañoon na di nekk benn ñeeni xàccandoo du dóorandoo parce que bokkoo leen zone lan moo leen boole phase départementale te boo leen fa dajee dama leen ñaan encore une fois coow bañ a jug ngeen indi fair play ka foore parce que lii dafa neex nawetaan dafa neex parce que boo seetloo tëngee ja bu amul nawetaan lii du fa am mu ngi noonu lii nii yëpp si ah, nawetaan la rek kon donc gars yi mu ngi noonu entre Jakaarlo entre Fass Guy Salane ak ki nga xamante ne mooy ASEC donc dama leen di ñaan rek s'il te encore une fois ñu tàppe xol yi doon benn parce que lépp tëngéej la ku jël coupe aussi tamit doo génn tëngéej ku am trophée doo génn tëngéej lépp si biir tëngéej la kon donc nay rafet tey ji ñaan nañ yàlla donc football nee daan ba mu jeex coow du am fuloo du am xee du am dara du am ñu defee ko comme ASC Ziadé nu mu koy defee parce que ASC Ziadé acte noble la def acte boo xamante ne donc équipe yëpp su ma soññee nee na roy si ma mooy bu tuuti bu ñu ko dóoree day toog victoire moo ko arrangé mu niil toog amul victoire amul astafurla amul défaite victoire am na ko benn victoire ñaari niil mu toog kon donc tey jii nii kooku bu defee acte bu rafet boobu noonu su ma su ma soñoon ñun ñëpp donc képp ku sportif. képp kuy ku yor équipe bu nawetaan ASC yëpp su ma soññ da ngeen jël da ngeen jël xool ay jikko si ASC Ziadé parce que acte noble la def kon donc mu ngi noonu ASC ASEC Ndargu Ndaw ak ASC ASEC Salam toujours un but à zéro pour ASEC Ndargu Ndaw bi marqué à la première minute de jeu bi marqué kan numéro 5 bu ASEC moo ko dugal ba léegi corner pour ASEC de Ndargu Ndaw corner ASEC de Ndargu Ndaw noonu 100 pour cent Zac Mbawa kooku mooy kan cëb 100 pour cent Zac Mbawa salaam voilà kooku ASEC salaam la 100 pour cent Zac Mbawa ASEC salaam man loolu laa gëm nit boo nee sa dëkk da def 100 pour cent bu la neexee ni ko waa Jokul di defee la ko waa Zac di defee voilà équipe bi bëri nañ tëngeej mais kenn bokku tax sa morom zone boo xoolee ñu di xeex ñëpp man na li ma leen di ñaax rek mooy que nañ bàyyi xeex xuloo amul njëriñ kaf foore lañ wax newetaan lañ wax parce que newetaan bu amul fii ñun ñëpp dañuy toog jaaxle ñun ñëpp dañuy kaas naan newetaan dafa war a am newetaan dafa war a am kon donc président ONCAV bu jëlee ay décision am ne nawetaan nañ koy amal kon donc nañ bàyyi xeex nañ bàyyi xuloo di kaf di foore ambiance voilà di kontaan aussi tamit si préfet acte bu mu jël ku xeex ñi aj la mu ngi noonu attention occasion manquée pour Asec Salam coup franc wala amul coup franc ba léegi Asec Salam nee na amul dara arbitre nee amul dara Zelen voilà Mass Mass yaa ngi kan Yacine lay ree ba léegi voilà mu ngi noonu Souleymane maa ngi lay siyaare tamit sa ah Souleymane nee na sama carte crédit match bi 0-0 la yaa nga waxoon na wax nga dëgg xaaral ñëw dugalal la attention match bi jeexagul la des na arrêt de des na ba léegi ba léegi ba léegi entre Salama ak Asek Ngargu Ndawa ba léegi ñoom ñaar ñu ngi doxal coup franc coup franc coup franc ah, pour Asek Salama la dernière minute de jeu la quatre-vingt-dixième minute Asek Salama zéro bi marqué le numéro cinq à la première minute de jeu voilà mu noonu Papis Ndiaye nee na lan salaam rek ba am ba bal 90 voilà mu ngi noonu salaam rek voilà waa asaka mu ngi leen noonu ñu yëngal waa asek Ndar gu ndaw ñu noonu ñu yëngal waaye lii dafa bokk ci di sànni ñi nga xamante ni ñoom ñooy waru ci ñu leen di jox information mu ngi noonu ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salam pour l'instant quart de finale à la phase départementale quart de finale la phase départementale attention bal bi dégagé nañ ko ci àll ba ASEC Ndargu Ndaw sama téléphone ngi sene mais mënu ma kaa jël sama téléphone yi sale mun mun ma kaa jël voilà waa ASEC Ndargu Ndaw waa ASEC toujours euh, un but à zéro Ndargu Ndaw bi marqué à la première minute le numéro 5 qui va marquer la euh, va jouer 91 minute arbitre bi bàyyi na mu ngi dee ñu ngi si match bi waa ASEC yëpp a ngi taxawa di xaar arbitre bi ne péep péep péep péep lañ ñu daw bi noonu lañ ko defee woon si pénal bi voilà mu ngi noonu asek ndar gu ndaw asek salama arbitre coup franc coup franc coup franc euh, pour euh, ndar gu ndaw voilà mu ngi noonu Isartu Aysatu Aysatu nee na 100 pour cent Zang Mbao si Zang euh, Mbao cité Aysatu nee na 100 pour cent Zang Mbao cité voilà Rock ñëw na Rock maa ngi lay siyaar sama doomu nday Rock siyaar naa la rog bëgg naa la rog naa la voilà mu ngi noonu ASEC Ndargou Ndaw ASEC Salam toujours 1 bi à 0 entre ASEC Ndargou Ndaw ASEC euh, Ndargou Ndaw ASEC Salam toujours 1 but à 0 pour ASEC Ndargou Ndaw on va jouer 92 minute voilà match bi li ci des bëreetul ASEC ñoo ñu yëngal noonu a ngi la voilà Assec Ndargou Ndaw Assec Salam toujours au but à zéro Assec Ndargou Ndaw Assec Salam match bi li ci des bëreetul match bi li ci xaala mu tiire ga Zoro Assec ñu ngi taxawa Zoro Assec Salam ñu ngi toog quart de finale quart de finale bi diggante ASEC Ndargu Ndaw ASEC Salama voilà Rock maa ngi lay siyaar di la bëggee di siyaar di siyaar ki nga xamante ne mooy Ousseynou Sile siyaar Zula maa ngi lay bëggee encore fois Nord Nord du Fall maa ngi lay bëggee Yacine maa ngi lay bëggee encore une fois merci beaucoup donc Rock maa ngi lay di. di kontaan si yow toi aussi tamit Rogo voilà mu ngi noonu jaxate ba léegi entre Asec Ndargu Ndaw Asec Salama Numbe mu ngi wane boppam Numbe mu ngi wane boppam damay ragal la Numbe nga taj li nga xamante ne mooy écran bi voilà di sama doomu nday mu ngi doog a ñëw moom tamit voilà attention attention occasion manqué attention arbitre nee na amul dara Julen arbitre nee na amul dara Julen feu du match feu a remporté cette victoire ACK a remporté cette victoire belle victoire ACK qui def loolu